man déggoo ma la wax man koñu booy bambara laa yendu man demoon naa man demoon naa man déggoo li ma la man demoon naa waaw man xanaa xamoon ni man ñe sa sa ba sa bokkoon man am na benn am na benn waay boo xam ni moo ngi sol benn sabadoor bu daal di vert moo njëkk a ñëw ni ma yow Pastef nga bokk ma ne ko waaw may may may moo mën ma rasolé comme comme comme si moom comme moo door bi rek bu sa waay rek ñu yuux barki sëriñ tuuba Mbacke ak yàlla bu ma giseen gisanteeg Serigne Saliou Mbacke waajee ma ko wax. billaahi ni bu Sonko yéegee rek laa la wax de ñuy ñuy yuuxu Sonko président Sonko président billaahi wallaahi wa taalaay waaw. man kay li ma wax ni man jë ñë sa sërëg man damaa julli fajar rek dem man la ma la wax kay leer na walaay yendu man kay lu leer naññ laa la wax. dañ doon xuloo foofu seen biir dañ doon rayante seen biir laa wax waxuma laa xuloo dañ de man li ma laa leer naa la man gars yi passé li ma leen wax xam nañ ko de benn waay boo xam moo yor seen mobilisation boobu waa jooju mu fekk mu mas rus mu ma sës rek si kii bi mu naan ma ah yow si Pastef nga ban fédéral ma ne ma wax ko ñaa euh, cokkeer noppi man mun maa kan kii dégg nga mor doodu bi waaw ma bàyyi leen rek